Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yon wan borom ni ngi hmm, Di jita sen mor ak mbolam ni di lu ñep. Xana di ñew di yokkat tout rek ci walu tandrama joj ju non wax ba tey njëriñ gu am ci wér-gu-yaram hmm, te it wet gu ne mënees koy jëfandikoo comme nag ñu ci koor gi xëy na léegi-léeg am ñoo xam ne niñ ko war a jëfandikoo ci wàllu lekk gi duñ ko duñ ko mënee noonu waaye am na beneen yoon woo xam ne bu ci lool te mu ñu def ko zi def ko njar nit ki mën na jël ay doomi tàndarma ñetti doom ñeent ba juróomi doom wala juróom-ñaari doom yooyu ñuy jëfandikoo par bis juróom-ñaari doom mu xooj ko bu xëyee xooj ko ba ngoon su ko defee mu naan ko ci kaasu ndox bu ngoonee mu jëfandikoo ko wala mu xooj ko mu fanaan bu bët setee mu di ko jëfa mu jëfandikoo bokk na ci yi nga xam ne lu am njëriñ la lool su koy jëfandikoo te comme waxoon nañ ci weeru koor wi naan yu baree bari surtout naan yu bari yu bari sukar yi wala muy am gaas yépp day yokk aw mar waxoon ne lii soo ko jëfandikoo dana wàññi lu bare ba dana la téye wax mar waaye xiif sax dana la ci téye ndax dafa bari ferñeent yu baree bari yoo xam ne soo ko manqué mooy tax ngay xëj gaaw a mar mar googu wala muy gaaw a xiif boobu kon soo ko xoojee di ko jëfandikoo baax na lool dalay téye ba doo gaaw mar waxoon nañ ko dalay téye it ba doo gaaw a xiif dalay baax na lool it ci wàllu yaram surtout wàllu miskilif suux yi day tax ñu màgg ni ñu war a màggee baax na loolit it booy naan ndox moomu ci wàllu sadiid yi ba tey baax na lool ci wàllu sadiid so wàllu reeñ yi ba ci jafe-jafe bopp yi ubbu yëpp booy naan ndox moom it ba baax na ci lool boo ko defee si noonu xoj ko di ko baax na ci lool day aar nit ki ba du gaaw a màggat moo xam gis nga yaram wi ras la ak yeneen xeet yooyu nga xam ne mooy ak màgge boo koy naan moom jar moom doon la dimbale lool day taxit ba li ngay lekk gaaw rees surtout boo ko defee si nga xam ne soo ndëgoo balaa ngay tëdd nga naan boo xëdd boo reer balaa ngay tëdd nga naan dina yombal lool loolu nga lekk gaaw rees te surtout lekk yu yi nga xam ne dañ koy lekk rawatina wàllu diw gi ak yi ñuy lakk noonu yëpp baax na ci day taxit doo seere te koor gi loolu di ci bari lool ndax yi ñuy lekk ni deme demee booy naan njarum Hmm, eh, tàndarma jooju mën na laa aar ci loolu banta dana taxit ñu néew doole gi kiy feeñ ci ñu baree bari ci wàllu koor gi xam ne ñàkk nos seen dund moo koy yóbbee booy naan ndox moom it ndox moom nga xam ne moom lañ xooj tàndarma ji nga di ko naan moom itam loolu ci dimbale moom xam vitamine yi ngay wala sax deret lay manqué baax na lool ci soj ndax suñu bare bari gis nga ndox mu sedd mi ñu naan guddi dina leen yóbbee soj sos waaw boo koy jëfandikoo moom ndox ma mu ñu xooj tàndarma ji noonu di ko naan moom baax na ci lool wàllu xeeti soj yooyu yëpp dala ci aar ba ci sëqat sax ñi sëqat waaw ba ci sax ñi xam ne dañ yor asma waaw suñ koy jëfandikoo naan ndox moom mën na ci wàññi lu bare bari doo ko day taxi sa yaram sawar day saw sa dundal yaram mun doon yaram moomu tax day jox yaram mboolem xeeti ferñeent yi mu soxla yëpp ba ko fekki bo demee ci tan na ko ci fek moo tax soo xoolee di ko naan saa soo ko naanee da nga yëg ak cawarte ci sa yaram mhm. baax na ci bët waaw day tax bët yi gis-gis bi yokk dina dëgg rawatina sax ñi nga xam guddé guddi duñu gis suy nan ndox mom waaw yalla mëna na koy defal taw ba loolu mën na ko bañ dal day soññe it waaw ku ci jëfandikoo yéen naan ndox moomu it ba tey baax na lool ndax day soññ waaw day dindi miir ñi nga xam ne dañuy miir suñ koy naan moom itam miir moomu yëpp day wàññi ko hmm, day dindi yoonu coono yi surtout coono yu métti yaram yu métti xëy wàcc ñëw sa yaram di métti wala sax dañuy wax tooy Fatima Zarenal yooyu soo koy jëfandikoo loolu yëpp da koy saafara. Hmm. bee ko xam ni maanaam ci xelam dul nekk ci lekk boo koy jëfandikoo mën na laa jox loolu te day taxi sax doo tax nga lekk lu bari maanaam mën na laa jox ba li nga bëgg nga lekk nga lekk te doo tax nga lekk bay fër te di di jafe tuur ndox ndax day tax soo koy naan tuur ndox dana la yomb ba sax na xeeti tooke yu baree bari yu nekk ci ñam yi wala naan yëpp da koy génne baax na lool ba tey ci wàllu res yi surtout ndox ma boo koy naan baax na lool ci xeeti jafe-jafe yi dal res yu ci gën a bëri baax na ci na lool ci wàllu rey mooy kilaay yooyu ñu doon wax soo koy jëfandikoo moom di ko naan da koy raxas ba mu set waaw da yi nga xam ne day raxas rey surtout xeer yooyu ci nekk yooyu yëpp da koy diite ba mu set da koy seyal na lool ci loolu ñoo gudd mooy baaraam yooyu di métti mel ni luy xonq noonu mel ni luy lakk bari na ñu may dal bañ yaakaar sax leneen la waaye soo koy jëfandikoo moom itam ne naan ndox moom baax na ci lool baaraam yooyu di lakk di ñiwi noonu hmm, tey mel luy xonq wala yenn yi ngi ñuul kukk noonu su koy naan baax na ci lool te koy saafara day dëgëral yaxit njar moom boo koy naan baax na ci wàllu yax day dëgëral mag yenn gaaw a damm yëpp leer ba tey ci xeeti tawati góom yépp góom yi nekk ci biir yi daraate noonu yépp boo koy jëfandikoo ndax antioxydant bi nga xam ne moo nekk ci tàndarma ji moo tax boo ko defee njar di ko naan baax na ci lool day taxit boo koy naan yenn tey tawata yu baree bare day aar sa yaram ba du la du la yépp du la dugg am na njëriñ looli it ba tey ci wàllu xol rawatina sax tiwo yooyu nga xam ne ci la deret ji jaar dellusiwaat ci xol bi ak génn duggaat ci biir yaram bi su koy jëfandikoo yooyu yëpp da koy sal baax na loolu it moom loolu ndox mi boo koy naan ci wàllu jafe-jafe nga xam ne day àgg ci wàllu nopp surtout nopp yi di riir nga xam ne surtout mag ñi mag ñi gën a bëri lay dal rawatina ci wàllu tension yooyu surtout bi yéeg ci baax lool boo koy jëfandikoo da koy wàññi même xeeti cholestérol yooyu ñuy wax deret jooju nga xam ne mooy tax nit ki toll noo xam ne fekk graisse am mooy yëpp bu koy jëfandikoo loolu yëpp lu koy wàññi rawatina nag jigéeni wéewul surtout jigéeni wéewul moo xam muy lekk doom wala muy def xocc na di ko naan rek am na ku cee sant sant yoo xam ne xëy na lu mu déggoon ci sëñ Moroom wax ko waaw ma di ko jëfandikoo nee na lu ku ci daan sonn la waaye yàlla defal na ko ci tawfiix ba wax dëgg yàlla defal na ko ndimbal ba mu am te jëfandikoo lenn ka lu moy lolu tàndarma rek tàndarma tàndarma rek am la jëfandikoo ba sunu doon defal ko tawfiq ah, da yombalit am dom googu waaw ba tax buy àggee mën na am dom te du am benn jafe-jafe waaw ba tey baax lool bu amé domit surtout walu, lolu ñu wax meret juju dara jooju di hmm. da gaaw jexal moo bañ a yàgg te liy génn yépp génn nekk loo xam ne da koy téye ci biir ndax loolu léegi ñu def ko sax lool moo koy lor naan lu ko a te fekk génnul li war a génn génnul moom nag dafay génne mu gaaw jeex te day euh, baax ci butitu njuru boobu ci biir nga xam ne wax dëgg yàlla fa nekkoon su génne yooyu rek da nga yëg ay misik yu bare bari yu mel da ko ay crampe yu mel noonu booy naan boo koy def njar di ko naan baax na lool ci xeeti misik yu da koy gaaw a delloo it ba jafe-jafe yi ngi ci yëg yëpp suñu borom da koy sabra su fekkee sax même jeex la léegoo la nga léegi koy tawat koo xam ne dafa jeex xaw a néew doole waaw da koy njar moom da koy booleeg meew waaw waxtu koy boole meew di ko naan lu baax lool la ci wàllu yaram wala sax maa woon concombre concombre bi mu def ko ji boole ko ndox moomu di ko jëfandikoo lu gaaw la ci dindi ak jeexaay dul mhm. jeexaay bind rek yooyu waaye yi nga xam ne wala yenn tawat yi moo taxoon ba ci xaw a jeexam na wala néew doole ñàkk ak nos ak dundam bu koy jëfandikoo moom ndox moomu mu xooj tàndarma dindi ko noonu léegi boole ko ñaw di ko naan baax na lool ni mu baaxee ci ko jeex noonu la baaxee ci xale surtout xale yi xale yi nga xam ne ñu ngi tollu ci benn at waaw jëm ñaari at ñett waaw surtout ñoo ñoo xam ne dañuy sax bañ te bu ñuy sax bañ di métti ndax jafe-jafe yu bari am na ñoo xam ne jafe-jafe yu bari lañ ci àndal sax bañ yaram wi tàng waaw mbir mi daw mel noonu su koy xooj da ko jox loolu yëpp yàlla mën na ko ci defal tawfeex bis mu ne mu jël ñetti doom rek xooj mu fanaan su xëyee mu sag ba mu set mu yendoo ko jëfandikoo toujours ba bu xëyee mu jox ko ci bu bëccëgee mu jox ko ci bu guddee mu jox ci loolu su koy def léegi dana dem ba sax bañ te du ci am benn jafe-jafe te loolu lu bare bari lay sonal day dindi tooke poson yu bare bare yu nekk ci yaram surtout rawatina ñu nga xam ne dañ daan jëfandikoo loolu ñuy tere te yàgg ñu génn ci te jeexe yooyu muy def ci nit ñu mu génn ci ñu génn ci seen yaram nañuy xooj tàndarma jëli ko naan suñ koy jëfandikoo rek yàlla mën naa def tawfeex ba xëy si loolu yooyu nga xam ne moo ci nekkoon ci yaramam yëpp suñu borom mën na koy génne yëpp da koy turndoo boo koy jox xale it dana tax léegi du yéex màgg surtout ñi nga xam ne dañ dund lu yàgg na ko cooral noonu te dara def ko lu may mën a dundin wu bon waaw maanaam ni ñuy dundee li ñuy lekk tegul ci yoon ñooñu soo xoojee tàndarma ñu guddi ñetti tàndarma boo xëyee segg ko ba mu set surtout nga boole ko meew ñu di ko jëfandikoo loolu mën naa tax seen màgg ñu am poids bi ñu war a am waaw te du am benn jafe-jafe hmm, kon daal xam ne rek waxoon nañ ne ñu dolliwaat ko ci daal li ciy gën a li ci gën a am solo nag mooy li ma noonu góone xale yooyu toll ci benn at jëm ñaari at noonu ba ñetti at ñu di ko jëfandikoo ak jigéeni wirul yi gën ci ñoom bariwul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu